ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak di nuyu sunu kilifa sunu xarit sunu soppe Serigne Souleymane Seck ñii nga xam ne moom la fekk fii ci daaraam fa tabaarakallaahu ñëw fi ànd ak coordonnateur bi nga xamante ne moo di ci mu nga xamante ni lépp lu lekk ci wàllu coordination ci siggi jot na te Ablaye Dièye kilifa gi président bi jiite ko moom ci moom la yàlla dogal mu yore boobu coordination ànd ak it sunu mbokk Massaer. président Ablaye Dièye bu sigg jot na moom moo ñu yebal fii ñu ànd ak délégation bii ñëw fekk si jëmm ji nga xamante ne mooy alaaji Sëriñ Souleymane Seck bu cene ba yore daara fii cene ba di jaamukatu yàlla boo xam ni taxawaanuwul te it xam nañu pastéefam ak pas-pasam ak cofeelam Ablaye ji moom itam ci lii xeeti jamono ndax bu jamono xew amee lu xew jamono day am nooy defe te jamono ji nit ñi dañoo tëju te ku tëju te amoo loo jëfandikoo dinga nga loof kon Ablaye ni kon daara yi kat seen ndongo lañu am te ndongol daara aadala ci moom mu génn yelwaani waaye taxul sax ni sëriñ ba amul la ko jox waaye nag dafa dafa bokk ca la koy tàggat ca la muy wut ci wàllu xam-xam ak la muy wut ci wàllu alxuraan waaye yelwaan loowul sax xale ngir dafa parce que ka koy yelwaan loolu daa amul lu mu ko jox tarbiya la rek ci tarbiya boobu nag nga xamante ni jamono ji ñëpp dana fatu Ablaye Dieye président daal di xalaat ni kon moom jaadu na ci li ko yàlla wërsëgale mu dem ca daara ya nar a fatu mu fekk fa seen i seen ñeneen di jàngal mu jox leen lu ñu jëfandikoo mooy lii ngeen gis fa tabaarakallaahu mooy ay teraanga yoo xamante ni président Abdoulaye Dièye Sène Souleymane nee na moo ko indi participer ko ci li nga xamante ni mooy téye daara mooy téye xale yi ci daara ji ginnaaw bi feebar bi nekkee ci réew mi te kenn xamagul kañ lay dem. sëñ Ablaye yàlla dogal na mu nekk koo xam ni euh, ku mën a dimbalee la. ca li may wax xam naa ko ndax Ablaye miin naa ko bu baax. ci suba woon na ma lu yàgg ñuy waxtaan ma moom mu am ay yéene yoo xam ne sax ëpp na lii waaw ci xolam yoo xam ne ci daara la ko jëmee ci suba bi ñuy waxtaan wax na ma loo xam ne euh, yàlla yàlla gën ko ko man loo ndax lu mu yéenewul doomu soxna amul lu mu yéenewul nitu daara amul waaye lii muy def nii nag moom sax moom ci war a gërëm parce que wóor na ma ni benn pepp bu ne xale yi jëfandikoo ko yàlla dina ko ci fay loo xam ni ku amul sens doo liggéey lu toll noonu yàlla na yàlla jàppale leen eh, man nag xam naa ni El Hadj Ablaye Dieye su ma doon président Macky Sall danaa ko jox dénk lu rëy ndax kat nii muy doxee ci alalam du yemale ko ci daara yi donc waaw ci réew mi yëpp. والقاسم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي